mimma tambo na tambo tanganane wameme suwezekia eti matambo matambo jangane umoya wekosia umoya wekosia tatu wezekia wamera wetamele wekosia umoya wekosia tatu wezekia wamera wetamele wamera wamemezu Hezekia, eti matambo matambo janganano, wamemezu Hezekia, eti matambo matambo janganano, oh, timomo timomo timomo timomo timomo timomo timomo mm, timomo momo momo ti momo ti momo ti momo ti mm, momo ti momo ti momo ti momo ti momo momo ti momo ti momo ti momo ti momo ti momo ti momo ayo meme meme meme zuweze kia matambo matambo matambo jangana ayo meme meme meme

matambo changanya wameme wameme zuwezekia matambo matambo matambo changanya wameme wameme zuwezekia ezi matambo matambo changanya C'est magnifique tout simplement, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Et comme vous le savez, ce sont des hymnes traditionnels et des mélodies créées en 1870. gospel, aujourd'hui nous recevons le groupe Kangele, bien sûr, c'est des jeunes euh, avec pleine d'énergie, bien sûr. Et ce soir, ils feront l'objet de l'inviter euh, dans toi, même tu sais. Euh, Flora, s'il vous plaît, venez nous rejoindre sur ce plateau de toi, même tu sais. Et bienvenue toutes et à tous tous Sala Bigué Ndiaye mu faire euh, la leçon du jour xam ngeen ko sa su rek euh, da fay a am njëriñ ba taxna euh, non si lañ ci ki nga Cissé la merveille pour nous présenter l'actualité de l'internet Kanta Fatima bébé et maman aujourd'hui bien sûr elle va nous parler de li nga xamantene mom moy comment réagir face aux insultes d'un enfant donc lolu la ci nar a waxtaane xam trucs et astuces mode et beauté sama jigen muy bien sûr hein, mon tamit sera de la partie euh, pour nous présenter euh, li nga xamante solo Moody hijab ak euh, mode et beauté Madame lépp li nga xamante ci kanam make-up da ci ànd ak invité mu di Khoudia Sarr waaye Mame Diarra Mame Diarra borom ci la tamit mu ngi ngir albinisme albinos ñu Pune, donc tey ci loolu la nar a waxtaanee ba tax lañ koy comme du lundi au vendredi 17h, 19h sur les antennes de la DTV. Et tout de suite, bien sûr, nous démarrons la magie avec, bien sûr, euh, Liska, minga nga xamante ne tey comme tous les mardis euh, pour nous présenter li nga xamante euh, jot nañ ko am ci euh, seen li nga xamante ne Liska ci lépp li nga c'est important dépistage boobu nga Khamentene, dépister c'est sauver des vies c'est important donc lépp li nga xamante cancer du sein et de col de l'utérus donc loolu ci octobre rose dañ ci dalal ki nga bien sûr c'est madame Gaye assistante de l'ISCA Mom tamit mu nous avons ñu nar a li nga xamantene octobre tout de suite sans plus tarder nous démarrons l'actualité de l'internet présentée par Adjara Sissé. nous démarrons avec euh, Dakar Matin, Bamba maire de la Médina, convoqué à la DIC demain, n'est-ce pas Adiara Vous l'avez dit Nicolas, Bamba va passer demain devant les enquêteurs de la division des investigations euh, criminelles DIC. Interrogé sur cette convocation, euh, le maire de la Médina estime qu'il s'agit d'un acte politique et le responsable socialiste de la Médina a manifesté toute son exaspération. Nous avons compris depuis longtemps le rôle que ça signe. La DIC explique Bamba Fall en fonction le coup et se voulant un peu plus clair, il persiste. Je cite, la DIC est devenue une, intense, une instance du Parti Socialiste. Elle a remplacé la commission euh, de discipline du parti. Hier, les responsables de l'APR se sont bagarrés. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ils l'ont fait. Donc très bien, Taï euh, Dakar Matin de xëy réunion ci li nga convocation Bamba Bambafa, Bamba Fall nag ku ko xam la Parti Socialiste moom nag la ko maire Médina

Euh, que c'est une instance de discipline parti parti socialiste. ku ci am loy régler rek da ngay mhm. dem dégg ñu woo donc voilà. très bien donc Alaaji Sala Bigué Ndiaye xam nga ne bour mom bu wootee mom ah, wuyu ji rek lolu moy ah, li nga xamante ne moom lañ ci digle ban jangane nga ci am waaw noonu la xam nga ku la dina la jox wala mu wax la hmm. comme woo nañ ko te dig moom xam nga comme dafay nekk pour yaakaar naa pour askan bi hmm. ah na xëy dem rek mais xa yaakaar naa ne du war a doon lu garaaw parce que du war a doon lu garaaw dégg ma lu wax lu garaaw dégg ma hmm. lu mu def lu garaaw te Bamba moom ku xam ne ni pees nag politicien di maire Medina buñ ko woowee am na lu tax ñu woo ko te dem wuy ji rek ak ni mu wuy jee te mu bañ a affaire politique politicienne absolument euh, très bien donc euh, Fatima bébé maman quelle lecture faites-vous par rapport à convocation bi nga xamante ne euh, ñu ngi ko jagleel kii di maire Medina muy Bamba Fall nekkoon fi invité toi-même tu sais. ah man de euh, je ne pense pas que nit bu defulee dara dinañ ko wara a euh, mën a euh, woolu ba nga xamné né ne mu ba ñàkk bañ a dem certainement dina wuy ji et je ne pense pas que ne ay problème yi nga xamné né mu ngi xew ci biir ben parti dik amna ci yoon. Mm-hmm. je ne pense pas té dégguma ben yoon Bamba Fall defna affaire ba nga xam ne ne. déclaration dik war nañ ko mën wo mais sagam dañ ko wo rek té te dikk moom ku mu rek peut-être amna lutax na dem rek. Après, on verra la suite. Très bien. C'est important. Merci beaucoup, Adiara Sissé, pour la première actualité de l'Internet. Selon euh, Dakar Matin, Bamba maire de la Médina, convoqué à la DIC euh, demain, Inch'Allah. Euh, donc, tu nous que nous passons à Flora. Bonsoir, Flora. Bonsoir. Vous allez bien Bien et vous Kandjele Oui, Kandjele. <laughs> gospel, que signifie Kandjele Kandjele en mandingue signifie les voix c'est un mandingue Oui. Et ça signifie quoi Les voix saines. Les voix saines. Voilà. D'accord. Donc euh, le groupe a été créé en 2008. C'est un groupe de jeunes euh, africains, pas seulement sénégalais. D'accord. Qui se sont réunis et euh, qui aiment ce style, qui aiment le style gospel, pardon, et qui essayent de le faire connaître. D'accord. Très bien. Kangele, 2008, euh, un album composé bien sûr de neuf titres. Et cet album s'intitule euh, Racine. Euh, dites-moi nous, les neuf titres, c'est composé de quoi Sur les thèmes Le thème, c'était toujours du gospel, mais c'était du gospel assez connu, du negro spiritual. Donc, c'est des chants qui sont connus dans le, monde. Hum. On a essayé de les reprendre et de les adapter à, comme on aime les chanter, à, notre style. D'accord. Donc on peut se dire que c'est tous les 4 ans pour un album Parce que 2008, 2016, 8 ans d'existence, mhm. vous en avez qu'un seul album. On espère en, avoir un autre bientôt, très bientôt. C'est mhm. un projet. On n'a pas réellement de, de, limites. On, peut, on aimerait en sortir peut-être un chaque année si possible, mhm. mais c'est un euh, en projet. C'est un projet. D'accord. En général, quand on voit le gospel, que euh, cœur gospel, en mhm. général, on voit derrière orgue, harmonium. Et aujourd'hui, on a vu que des gens hein, hein, chanter avec leur propre voix, leur voix saine, comme vous venez de dire tout à mhm. l'heure. Euh, pourquoi ce choix C'est une façon de se démarquer aussi, parce que maintenant, la plupart des groupes sont accompagnés de guitare, de, tam-tam. On le fait également pour des occasions particulières, mais on aime la cappella. Mhm. C'est une façon aussi de se démarquer, de faire autre chose, que les gens s'attardent un peu plus sur les voix et, euh, et ils écoutent aussi les paroles. Mhm. Voilà. Très bien, Adara, Fatima, Gospel, euh, Kangele qui prépare un grand événement euh, au Grand Théâtre de Dakar, donc au partenaire DTV, Ce sera en direct sur les antennes de la DTV. Et Flora, c'est la lead vocale. D'accord, très bien. Moi, euh, j'aimerais bien savoir, est-ce que la motivation de, de cappella ça vient des de l'Afrique du Sud ou Parce que moi, j'ai eu à quand même regarder sur Internet, sur YouTube, des groupes sud-africains très très connus et tout. Ils font leur spectacle dans, les, dans, des, grandes, salles et tout. Donc est-ce que c'est la motivation de, votre groupe on va dire que euh, le, gospel sud-africain est une de nos tendances. On aime beaucoup ce qu'ils font, on les suit un peu. Mais c'était surtout pour nous qu'on le faisait. C'est qu'on avait besoin que les gens écoutent ce qu'on dit, apprécient les voix avant de rajouter autre chose autour. C'était réellement que les gens s'attarde sur les sons. Mm. On n'a pas les, instrumentistes sont là pour accompagner, nous accompagner, accompagner les voix. Donc c'était apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'avant c'était beaucoup d'acapella. Ensuite on est passé à une phase où il y avait beaucoup d'instruments. D'accord. Un, gros nombre d'instruments. Aujourd'hui nous nous essayons de passer retourner à l'acapella et aider les gens à apprécier ce style. Et dans le gospel quelles sont vos références on va dire euh, en Afrique du Sud, si on s'arrête là-bas, il y aura le Joy Celebration, c'est un groupe assez connu. Et le Soweto Gospel Choir, qui est aussi mhm. un groupe qu'on suit et qu'on apprécie réellement beaucoup. D'accord. Après, il y a aussi aux États-Unis, les Mass Choir qu'on suit, qu'on on aime leur style, leur façon de, de chanter, voilà sont des groupes que l'on suit euh, assez euh, D'accord, d'accord. En attendant, une petite question. En, tout cas, en ce qui concerne les voix, il n'y a rien à dire. En un moment, vous chantez et puis je regarde pour voir s'il y a des instruments à côté. C'était vraiment extraordinaire. Moi, je me dis que si j'avais de telles voix, j'allais penser vraiment à faire de la vraie musique. Est-ce que dans l'avenir, vous ne pensez pas euh, faire, je ne sais pas, de la musique comme l'R&B ou des chansons françaises En tout cas, pour les voix, c'est extraordinaire. <laughs> Merci. bon, notre style, c'est le gospel. C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on fait. C'est votre identité. C'est notre identité, exactement. Mais mis à part ça, on reprend aussi des chants connus. On en reprend, mais c'est réellement ponctuel. Notre style, c'est le gospel. C'est ce qu'on veut que les gens apprécient chez nous et pas autre chose. On Vous n'envisagez pas de faire autre chose moi. Non. Dans l'avenir. Vous serez beaucoup plus connu. Euh, on aimerait être, être, connu pour le gospel. Pas pour avoir repris euh, un chant R&B ou avoir fait un chant R&B. On aimerait être connu pour ce style-là. D'accord, d'accord, très bien. Donc, euh, vis-à-vis de vos euh, partenariats, de vos collaborations, on a eu à, voir euh, que vous avez eu à travailler avec Wali Balagosek au Grand Théâtre. On va regarder cet extrait. C'était Wali Balagosek au Grand Théâtre lors de son anniversaire avec le gospel Candile. <laughs> Candile. Voilà, très bien. Donc, d'où est venue cette, cette collaboration avec Wali Balagosek D'autant plus que nous savons que vous avez eu à travailler avec pas mal d'artistes sénégalais comme Khalam, Kurgi, etc. Mais avec Wali euh, C'est comment C'est beaucoup de, bouche à oreille. cest à recherchaient quelque chose de, différent pour, euh, pour ce, spectacle-là en particulier. Et donc, ils nous avaient déjà entendus avec d'autres groupes avant. Et puis, ils ont demandé à nous, à nous contacter. Euh, c'est un cercle assez restreint. Un peu, tout le monde connaît un peu tout le monde. Donc, c'est facile quand, de pouvoir on va dire, jouer avec un peu, un peu enfin beaucoup d'artistes, on Ça Ça n'a pas été euh, difficile de de? vous intégrer euh, dans, son morceau, d'autant plus que vous ne jouez pas euh, avec les instruments et tout Du tout. Ça a été très facile. on a eu une collaboration très professionnelle. On répétait sans problème, c'était vraiment une bonne collaboration, un bon souvenir pour nous. Hmm. Pour nous et pour ce morceau, ça ça vous a pris combien de temps

même ci olof yi dafa am à l'époque buur yi bi ñu sànni génne dafay am ay ba ay baj géwél yoo xam ne dañuy toog di woy woy jat des fois ki nelaam dina ko def ci ay morceau morceau yoo xam dañuy tëgg comme tëgg buur mu mel ni kuy làkk loolu genre boobu genre woyin la nga xam loolu la ñuy wax woy bi dafay am mbaar am mbëfën am njol yi mm-hmm. ñoom seen woy sans ni ñuy àndee mm-hmm. voix gis am am c'est ça lolo la lay jox. Mm-hmm. xaw xam nga limay wax mm-hmm. en tout cas que Dieu vous bénisse. eh ouais. <laughs> très bien dernière question Ayara euh, moi c'était par rapport à votre public est-ce que vous pensez que les Sénégalais sont assez regardants à votre travail parce qu'ici, on sait que. heureusement, on a un public qui nous suit, un, un mm-hmm. groupe qui nous suit depuis le départ et qui s'agrandit de jour en jour. Le peuple sénégalais sénégalais, vraiment, on est on le, on le, représente. C'est qu'on est, majorité, on est majoritairement sénégalais. Il y en a qui travaillent ici, qui sont étudiants ici. Mhm. Et le peuple nous suit. C'est-à-dire qu'il nous voit de temps en temps avec un groupe. Il se rappelle, ah oui, c'est vous qui avez chanté avec X ou Y, voilà. D'accord. Et donc, ils nous suivent et c'est plaisant. C'est-à-dire qu'on sent la reconnaissance derrière parce que c'est beaucoup de travail. Mhm. Pour nous, c'est vraiment des heures de répétition. Et de voir que le public nous suit, c'est assez très très encourageant. D'accord. Mm. Et vous êtes de quelle nationalité Moi, personnellement, oui. sénégalaise pas à 100%, mais un peu sénégalaise. Ah bon oui. T'es des Non. Amna na maamu géwél da nga am maamu géwél xam ne ku la dàq <laughs> ah ki ko dàq mu ñibbi mu ñibbi ndaat ndaat euh, lay def ndaat ah. ndaat amoo maamu géwél xam nga wala xamoo Non, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Je parle, je parle vraiment diga, pas. Diga, diga, vous comprenez, mais vous n'arrivez voilà. pas à parler. je parle vraiment pas. D'accord, très bien. On y reviendra tout à l'heure, Inch'Allah. <laughs> Flora, lead vocale du groupe Kandjeli. Euh, Kandjele. Euh, d'accord. Maintenant, c'est voilà, euh, très bien. Donc, tout de suite, bien sûr, sans plus tarder, nous passons à la rubrique euh, Bébé et Moment présentée par Fatima. réagir face aux insultes d'un enfant dans Bébé et Maman euh, tey loolu la ñu euh, fas yéene waxtaan xam nga euh, xale buy jàng di commencé di di saaga am na ay parents yu bëri yi nga xam ne dañuy am tiitaange dañuy am jaaxle ñu naan lii nii commencé arrivé c'est normal ñu am benn panique parce que da ngay tukki wala nga liggéey nga dénkaane sa doom nga ñëw commencé ko dégg muy s'aga. wala sa euh, am fréquentation bu bees nga ñëw dégg ko muy saga wala yow mi sax parent bi nga mësa a ben ñaax wala ñett ci kanamu xalé bi mhm. mais bayyi wo ci xel fekk ne xalé bi capté na peut-être da nga wax né il est trop petit pour comprendre té lool non yëpp dañ ci wara bayyi xel foog ñu xamné né xalé le mëna doux mëna gentil mais aussi ben moment mëna agressif mëna insultant nek ko xamné un bagarreur mhm. euh, ben réaction bu négative bu nek bi nga xamné xalé da koy indi yow parent bi dafa am comportement bo wax a am dafa am comme ben réaction boko wara d'elo attitude bo xamné mom nga wara garder ci bo nekkee ci kanamu xalé bi déjà euh, erreur yi nga wara ñëk éviter xalé boo ñëkke njëkkee dégg mu saaga bi mom moy euh, nga nga baña a barrière parce que am na par am na ñoo xam ne ne dañuy bu xale day saaga peut-être affaire bi bett leen ñu daal di reetaan ne i waaye léegi da saaga daal di woo diw ne ko kaay dégg kii lu ma wax lii de la ma wax mm. man sax damay jàpp ne genre réaction yooyu noonu ñi koy faral di am mooy kër yi nga xam ne ne saaga moom comme naan fa ndox saga comme naan fanta genre réaction yooyu non mag yi koy faral di am am ci kanamu xale loolu moom c'est à éviter parce que xale bi mën na jàpp ne reetaan boobu nga reetaan day foone peut-être lii yaa waa lu baax la yaa rien de mal euh, benen bi mooy xale euh, saaga nga dégg ko nga ne ah léegi da saga saaga maa ngi ñëw fekk la foofu waaye foofu lay yem do juk do def ben ben réaction wala aussi euh, en général fi xalé bu saga sax ñi ci bëri bastoné lañ lay njëkk def <laughs> dinañ la ci tégal ay mbaj ba paré amna ño xamné né dañ leen dañ la ci sax dooleel ay saga tegleel tegleel la ci ay saga alors que yoy noonu c'est c'est à éviter parce que dafa am xalé yo xamné né ne nañ muus bo xamné né ñom pour énerver li nga xamné né mo lay gëna énerver en général lolu lolu lañuy def yow mag bi xalé saga na déjà cherche à savoir lan motax xalé xale bi saaga xale euh, c'est soit pour vous né dafa mécontent euh, wala mu bëgg a jot ci benn affaire bo xamné ne mënu ko Voilà.

pas parce que da ngay saaga que li nga bëgg da nga siy jot. d'accord mais man li may bëggoon njëkk laaj moy c' est à partir de quel âge yan âge nga nek di sensibiliser ni parce que amna ci buma ma déggee am na foo dama ci sentu xalé bu am 3 ans. amna fo mhm. foo sentu ne séntu fa xale bu am 7 ans. hein mhm. ah, sentu naa fa xale boo xamante ne commencé na di dox ay yëfam. Mhm. Euh, mais ci ban âge ngay gën def sa cible. en fait amul âge âge précis parce que xalé da ngay gis ko xam dafa am 2 ans commencé wax. di nga gis koo xam ne ne atam deux ans mi sax matagul nga dégg ko muy commencé wax té en général dañuy faral di wax né xalé yi nga xamné ñom ñoy gëna gën wax mooy ñi nga xamné ñoy ñooy nekk ci grande famille té fofu foofu en général ci lay euh, gëna dangereux da ngay gis né ne peut-être xalé bi buy fréquenter ay ñu bëri légui nga gis ñoñu en général ñom mag seen comportement dafa am no xamné né peut-être duñ ko rafetlu da ngay gis xalé bi day jël ci jikko yoy non yépp hmm. motax man damay faral di wax né nit bu amé dom rek dafa wara commencer di yar bopam pour répondre sa question amul âge précis xalé kérok bi nga xamné né ne muy commencé di dégg yaa ngi dégg muy commencé di dégg di commencé di jàng wax parce que yow mii sax sa doom même bu dul saaga parfois dina ñëw wax la benn affaire mais nga ne attends mais yow kii lii la ma wax mais danga naan mais attends lii kii lii kan moo ko ko jàngal peut-être yow wax nga ko un jour te yow rendroo ci compte d'accord Très bien, c'est important Fatima dans bébé maman madame Gay assistante de l'ISCA euh, Yangi ngi Linga euh, li nga que euh, Fatima mu ngi koy wax ci wàllu xale âge bi nga ne war na ci tolu, comme ni comment réagir face aux insultes d'un enfant tey quelle lecture faites-vous par rapport à li nga xamante ne bon je suis tout à fait d'accord avec elle parce que je dis que euh, day copier parce que fait mu que ci environnement familial bi. ñu diko wax rek. Mm-hmm. lay parce que man euh, je suis un exemple. sama mm-hmm. donne un jour il a juste moins de deux ans. Mm-hmm. dama wàcc un jour mu ma maman allez dégage. Mm. ma me ma quand ko ku wax dégage. mu ma papa. bon ma ñëw ma ne papam ki dama dégg mu wax dégage. papa Mbré mu ne ma effectivement dafa fekk keroog. may am na lu mu doon def. mu ne ko papa allez dégage. Mhm. ma ne ko tu vois. Mhm. déjà mu ne ma ne ko capté na ko. te kii il peut pas comprendre. Mhm. moo bi nga ko fan la ko utiliser ak fu ko. ak fu donc xam une personne étrangère mën na ñëw si biir kër nous donc après donc il faut très très attention avec les enfants mhm. parce que nous copier le nous ne tu n'es pas là mhm. aussi je ne suis pas là donc ils n'ont pas l'âge de réfléchir pour nous, c'est le bien mhm. donc il faut que nous toujours attention ci biir surtout surtout les bonnes encadrer leen de telle sorte que li ñuy kii ak xale yi mu doon loo xam ne lu positif lay doon. d'accord très bien est important euh, maam Diarra ci la ñu bokk euh, dégg nga li nga xamante ne Fatima indi na ko ah xale bu saaga ah maanaam yëg-yëg bi ngay njëkk am ci boo déggee mu saaga. voilà Nicolas xale bu saaga si saa c'est da ngay tiit. Hmm. parce que saaga. du yëfu xale xale moomu ko. Hmm. da ngay dégg sax yow boo nekkee en colonie de vacances bu ñu lay former en managériat di la jàngal naan la aral samal yaral mm. bul tour bul saga ndax xalé la parce que comme niko niñ ko waxé rek xalé da fay copier mm. kon saga nek na lo xamné euh du yeuf xalé mm-hmm. té xalé bu tamé di fréquenter ay différentes kër mm-hmm. da fay saga parce que tay Nicolas mm. dama dama ci am ben exemple rek ko xamné dundul ak yayam ak papa mm-hmm. da fa nek yayam da fa nek fi papa am nek fi da fay joggé fi des fois mu ne am fay weekend am fay weekend xalé bu amé ñaari kër rek da fay am habitude di saga voilà c'est important Ah, merci beaucoup ah, mam diara alhaji sala yow mi nga xamantene ya ñuy magalé plateau bi sa su né ah, tay ban ban ban ban yeg yeg nga am ci li nga xamantene fatima indi nako ci bébé mama muy muy lu am solo muy lu am solo xam nga dañ ñi xalé ndap la mhm. ndap la lu set wécc dara nek donc lu ci nek dañ ko ci def mhm. pratiquement surtout ñun ni ñuy ki xalé bu xalé saga dañuy ré dañ koy def kaf di ré mhm. dañ ñé sa dom sax bul di saga ci kanamam bul di wax lu ñaaw ci kanamam bul def affaire violence ci kanamam. parce que xale bi am deux ans xale yi léegi deux ans dañuy dañuy dañuy ah, précoce. dañuy muus dañuy capté dañuy euh, capté. sama benn kii sama benn doom. anecdote non non sama benn doom sax. dafa dafay sama sama sama doomu xarit la. d'accord mais dafay daan ñëw fekk papaam saa yi fekkee sœur mi ci saal bi bu guddee dana day wax réew mi eh dama leen tëddi rek saaga. léegi xale bi benn bis mooy mu ñëw fekk ma ngi toog saa bi rek mu offre bi eh acca teg saaga moom <laughs> xam nga déjà parce que loolu loolu la gis papaam di ko def. d'accord mais ñu reewaa kër mais dama woo papaam ma ne ko lii nga def nii c'est très dangereux. dëgg la yaa ngi saaga say kanamu doom. Mm. surtout xale bi nga xam ñaari at la gis nga mm. déjà li nga def rek moom. pour mm. moom dafa ne farata la. dafa ñëw wax yëkkati rido bi rek def ni nga def. rek dagg rek ah, ah. donc euh, surtout tamit bu amee benn âge bi. Euh, liñ koy njëkk jàngal ci kër yi. comme li ki wax dañu ndaw fukki rew ak ñaar fukki jikko ak ñaar ndaw fukki rew ak ñaar fukki jikko ak ñaar deug la xalé bo bañé mu am yéni jikko yi bu mbaré fumuy fréquent mhm. fréquentation bari day yak xalé xalé day yem ben place xalé momul mbedd momul fréquentation xalé ci kër la am ak école très bien donc kon nañu gëna sam njabo gi ta xamné xalé mo mu ci don mak très bien c'est important xalé moy doni mak ba taxna nonu lañ ci andé ak ki nga xamantene moy Miriam trucs et astuces mode et beauté tay nak limi indi moy euh, mode hijab mais ci bala hijab make-up euh, lay ñëkke daal di wacc ci li nga xamantene mom moy hijab euh Miriam dégg nga li nga xamantene mom lañuy wax waxtaanee eh, ci bébé et maman yow ban lecture nga ci am. D'accord, ce micro ñëwul mais dina ci wat légui. Waye sa make-up moom rafet na macha allah. très bien à tout à l'heure incha Fatima dégg nga euh ku ci nek rek jangat bi nga xamantene ne euh, ci thème bi nga indi tay. Mhm. di wax ne ne rek euh, crise de colère ci ci xalé déjà parents yi foog ñu xamné né lolu lu normal la crise xalé am crise de colère mais mu japp né lolu lu normal la taxul tamit mu def laisser aller par exemple laisser aller mom moy euh xalé la mu ngi saga wala wax la ni nga né ah garaawul bu maggé dina deñ loolu yaa ngi ko yaa ngi jàngal xale bi loo xam ne peut-être yow xale bi buy buy continuer di saaga ci kër gi. te yow bu day day comique bu ah. mhm. a ne eh, eh saaga baaxul. waaw mhm. ah. donc il faut nga wax saaga rek mu ne mhm. eh, saaga baaxul. très bien xam nga benn jour maa ngi doon wax ne ne xale booy wax ak moom da ngay wax ak moom kon comme mag parce que du c'est pas pour rien yow boo nekkee xale li nga def nu mu lay marqué loolu noonu ngay ànd ak moom ba keroog ngay màgget ngay gis na ne peut-être boo amee ay 30 ans 20 ans yooyu am na affaire yoo xam ne ne def nga ko mais da nga koy fàtte mm-hmm. pour dire que xale lépp li nga xam ne ne da koo marqué loolu noonu dafay resté

torok mom meunal na bopam meun gi demal bopam te avec yow ou sans yow mom dina meuna demal bopam hmm. euh di di wax ne ñu baña tayi ben yoon te keroog ba nga amee doom si nga yow ya war a defaraat sa toogaay defaraat sa sa sa ni ngay waxee. Mhm. yow xale bi day imité yow la nekkal. Mhm. voilà xale bi yow yow lay imité mhm. yow ya, la nekkal kon mu xoolal bu baax saay bu taxawee yow yow li ngay wax. parce que dañuy faral di wax ne ne sax xale yi nga xam ne dañoo ci famille yi nga xam dafa mës am tension saaga et tout xale bi dem ba màggaale loolu bu ñu ko déggee muy saaga dañ naan yaayam nii la meloon. wala maamam nii la meloon. te loolu dañ siy conclure ne rek euh, xale yi ëllëg lu ñuy doon seen qualité seen comportement ñun li dañ ci am part de responsabilité bu mag a mag ba damay wax né ndogal bu amul wala yow li nga wara fay bu amul bo ci wax solo ak rek Yalla dina la si dimbali. très bien daf may fàttali euh, Penda Seyni Gueye mom bo boo da danaan papa. elle a dit un gros mot. <laughs> voilà. Elle a dit un gros mot. Donc, bon, il y a c'est quoi pour croire que elle a dit un gros mot. Vous avez fait un gros mot, vous avez fait un gros mot, vous avez fait un gros mot, vous avez fait un gros mot, vous avez fait un gros mot, vous avez fait un gros mot, vous avez fait un bonus du jour, vous avez fait un gros mot, vous avez fait un Voilà, le lol, nous avons fait une vidéo vidéo où nous avons fait un buzz euh, sur Internet. Ouais, euh, de fait buzz. Ah, dans les buus euh, ay xalé la yu yu toll ci 45 xalé, ñu reprendre ben chanson Michael Jackson. bu tudd Heal the World. je pense que ñu bari euh, xam nañ ko. Mm-hmm. ñom la mom lañu la reprendre chanson bi nak fu mu nekk actuellement démb laa ko vérifier, mais xam naa ne war na ko ëppal 715 904 mm-hmm. vues mu nekk ben spectacle bi extraordinaire mom mo nekk né. sonne bien sûr donc Mom le Fatima indil ci bonus du jour voilà mu nek nak ben way bi nga xamné dafa dafa daw yaram man à chaque fois su ko déggé sama yaram dafay daw te xam naa ne loolu moom moo dal internet ba tey dàqu ma ko ba tey ba wa ba tay dàqu mo ko xamna né lolu mom mo dal internet yi nga xamné né ne à chaque fois vidéo bi vidéo bi buñ ko dugalee yagul mais hmm. nombre de vues mo attiré sama attention ba mo indi len ko mu nek chanson Michael Jackson xalé yi euh, ñom ñu ci rendre hommage nga xamné né mom moy Michael Jackson hmm. té xalé en général chaque fois boo leen boolee lay li lay doon moy spectacle bo xamné né da fay marqué nit da fay nek lu extraordinaire. Eh da fay génn ci xol duggaat ci xol. c'est ça c'est important merci mm-hmm. beaucoup euh, Fatima bébé et maman donc on se donne rendez-vous jeudi prochain inchallah allah ah, bu ko defee ngay wat lu gën té am njëriñ amna solo lool waaye Miriam mom batay tey mu ngi ci trucs et astuces mode et beauté ñu koy défal make-up après hijab bi moy dogo ñëw ak euh, son invité euh, Khoudia Miriam euh foo leen toll ni les sourcils et Nicolas fond de teint. ce oui c'est vrai. <laughs> donc a micro. <laughs> micro micro voilà très bien Myriam va waxal ñu ngi

pourquoi vous def choix boobu mu depp ko pourquoi. wa man dama ko depp wa léegi lutax nga depp ko amna na lu waral am na nga depp ko. wa c'est parce que bëgguma niroo léegi ñëpp. ah bëggoo niroo léegi ñëpp. Ah. mais est-ce que est-ce que logique maquillage tamit amul lu mu laaj. si c'est pareil. c'est pareil l'essentiel daal mooy. Mamy Diop c'est pareil. <laughs> oui. ah. Khoudia Sarr. d'accord wa wa wa non ki may wax xamna na boppam <laughs> euh, xam naa ne Khoudia Sarr la ki mooy njool. <laughs> voilà donc euh, voilà. Khoudia léegi boo paree sourcil yi lan ngay attaqué. Mm, dañuy def farage bi. farage bi d'accord accord def rouge à lèvres. d' accord yi def suñu musso d'accord donc Nicolas ñoo ko déggandoo à tout à l'heure mm-hmm. tout à l'heure incha ñu yeggali lolu nga xamantene mom moom la ñu nekk di defal euh, Myriam et son invité Khoudia Sar euh, make up la ñëkke après ñu terminer ci li nga xamantene mom moy mooy hijab comme Nico ko euh, madame Guèye Maguette Samb défé muy assistante Liska mom tamit nara waxtaan ak ñun lepp li nga xamantene jëm na ci réalisation ak fu mu toll nii attente yi. yi nga xamante ne ñoo ngi ko doon xaar ah, fon naka lañ ko gisee ak naka lañ ko dunde c'est important ci lool nag la ñuy jaaree ànd ak ki nga xamante ne mooy Maam Diarra Maam jaara si la ñu bokk ah, Maam jaara li muy waxtaanee tey muy albinisme maanaam ah, mooy mooy li ñuy wax puune donc looy tey loolu lay war a waxtaanee ñu ànd ceeg Maam Diarra si la ñu bokk. dëgg la ñun de ci lañ bok <laughs> hmm mané ko ci lañ bok dé ma am Diarra. waaw ci lañ bok <laughs> très bien tay nga né yaa ngi waxtaanee li nga xamante mom moy albinos ñu gën ko xamé ci pune. effectivement Nicolas tay dañuy waxtané li nga xamné moy albinisme albinisme nag bu ko déggé mun nañ ci tirer le mot albinos. Mhm. albinos nag mom la olof di wax puune. d'accord puune nak likoy andi anomalie la causée par l'absence de mélanine. Euh, absence de mélanine mélanine mooy permettre yow Nicolas yow mi nga xam ne am nga mélanine nga ñuul mm. bi nga xam ne amul mélanine mu daal di weex kon yow euh, jàpp naa ne yow amoo mélanine waaw man aw ma mélanine parce que mélanine nekk na substance boo xam ne mm. sa deret lay daw di la permettre di la di la di la di la di la nu sax di la. dimbali. moy tax ngay meuna ñuul. voilà di dimbali ci les rayons. Ah, rayons du soleil rayons soleil d'accord d'accord ultraviolet jant bi. d' li jant bi di di sànni. Mhm. nga xamné bo amé bo amé amee. mélanine euh, di nga ko meuna a mhm. par contre ak puune bi mënu dékku lolu parce que euh, amul mélanine kon du meuna exposer wu ci naaj bi. koy dundé mom voilà naaj boobu noonu muy dal ci yaram voilà naaj bi ni muy dalee ci yaramam Nicolas bu fekkante ne amul ay crème solaire yu ko mën a protéger euh, dafay faral di am ay cancer de la peau te ku ne xam nga ni cancer de la peau dafa yàpp albinos yi dafa yàpp puune yi hmm. ci kaw crème solaire yooyu dafa am nañ koy utiliser Nicolas. Mm. Euh, crème solaire boko amé utiliser rek ba pare sa yaram exposé au soleil. ngay sol ay mm. wala nga sol ay mm. chapeau. pour nga xamné wax ni <laughs> chapeau ah ay correcteur <laughs> man bi ah d'accord ak <laughs> voilà Nicolas parce que tamit euh, absence de mélanine bobu vision. albinos bi vision pouné bi leerul parce que boy xol pouné bi dafa am rétine bo xamné ne xam nga yow da nga am rétine bu taxaw mm. par contre ak pouné bi rétine bobu am ko bo heure boo xoolee rétine da ngay gis muy def ni def ni ñàkk mélanine boobu mm. moo rétine bi di bouger ci kaw rétine bobu di bouger moy tax du mën gis du am vision bu claire comme yow ni ngay amé vision bu claire mm. raison pour laquelle pouné yu bëri jànguñu jang bu sori parce que amuñu amuñu amuñu vision bu claire d'accord par manque de moyens aussi hein. voilà ci kaw loolu loolu moo taxoon nag Nicolas ci jamono yi que pourquoi képp que amoon donc puune un parce que nit ñi xamuñu woon exactement lan mooy puune euh, technologie développé wul woon ba nga xam ne euh, nit ñi xam nañ lan mooy puune dañ leen daan beddi di leen stigmatiser di leen caractériser seen am ñoo xam ne sax dañoo jàpp ne puune yàlla da koo alak mm. euh, non lañ koy jàppee moo tax ñu leen di stigmatiser mm-hmm. di leen ber mm-hmm. ñoom di leen puus daal bu njëkk boo amaan doom mu nekk puune dañuy yaakaar ne sax da nga am ay rap ay relation ak ak tubaab wala dara yàlla bu fekk nag xam nga ngay liggéey ak tubaab wala dara parce que loolu amon nañ si cas mm-hmm. dañuy jàpp ne da nga am relation feneen ak beneen tubaab wala ba sa dëkkër ndax la daan beddi dëkk bi génn la maanaam wàllum infidélité dafay feeñ foofu voilà am na ñoo xam sa dem nañ ba bu tey boo jëlee karaw puune wala nga jël dara si puune tey karaw puune boo ko defee sa poche da ngay am xaalis wala nga jël bopp puune nga suul ko fenn da ngay am or wala jama ah bon eh, loolu moo waral Nicolas sacrifice hmm. eh, yi daa di ñëw ci ci ci ci ci yi d' waral nag nit ñi tiitoon Euh, ñi di nëbb seen doomu puune mhm. ñiy ber seeni doom ba pare société bi nak ber len parce que xamuñu won nak lan mooy euh ci kaw loolu nak Nicolas comme technologie bi dafa avancer ma demaloon len ba Kenya Kenya oui mhm. fek fa ben association albinos ñuy célébrer seen dixième anniversaire di fay def concours de beauté kon xam nga ni changer nañ carrément le regard. Mhm. ndax tay bu puune amé fit am sañ-sañ. hein dem bay def concours de beauté pour ñu ñu génnee fa. Mhm. voilà mais mais mais on on on on l'a vu aussi avec euh, Nabou Diagne création. hein gis nañu défilé bi mu muju def rek ah, jëloon na ay albinos. mettre leen au devant de la scène ñom ñoo ñëk a défilé sax danaka ñom ñoo ñëk a défilé xam nga lool tay nek na lo xamné lu ñuy lu la nek na lo xamné c'est beau à voir parce que neexul nak nga nek puune wala nga am mbokk puune wala nga am doomu puune. nga gis ñu koy fii păi tey nga gis tey au devant de la scenă. ah nekk miss wala di def émission comme man rafet mi waaw ah, yow rafet mi waaw ma maa la wax li ah di def émission ci élection miss bobu mom xamna né bo boo dé TV indi ñu raayé wala di def musique ah. xam nga lolu c'est beau à voir te ah. dañuy gëna am yaakar kon ñu ngi gis né beddi bi ñu beddi woon Nicolas hmm. ñu ngi doog commencé wa di bokkaat nag di bokk ci société bi intégrer parce que ñun tamit nak ay doomi réew mi lañ hmm. té dañoo bëgg di participer activement dans le développement de notre pays dañuy daal di dem Kenya hmm, xool waaw dañu dem Kenya tey duñ dem Brésil Kenya la ñuy dem daal di xol daal les mannequins femmes et hommes a marché sur un podium. On introduit ces mannequins au monde du glamour. One, two, three. C'est leur première fois, car toute leur vie, ils ont vécu dans l'ombre. Les choses se sont un peu améliorées aujourd'hui, mais il y a quelques années, vivre avec l'albinisme était presque insupportable. When we grew up, um, it was a bit of hard Grandir dans des zones rurales, par exemple, était difficile, car la plupart n'avaient jamais vu des gens souffrir d'albinisme. Ils ne comprenaient pas qu'un Africain puisse avoir un enfant blanc ou quelque chose comme ça. Ça m'a inspiré. Nous ne sommes pas représentés dans beaucoup de domaines et certains pensent que nous sommes incapables de faire certaines choses. Donc, il est temps de prouver le contraire. Les histoires d'horreur d'albinos attaqués pour des sacrifices rituels ont semé la peur au sein de la communauté. Mais un sentiment de calme semble être retrouvé. Ils réapprennent prudemment à se tenir droit et à être remarqués. La Société d'albinisme du Kenya a organisé un concours de beauté pour marquer ses 10 ans d'anniversaire, pour démontrer les avancées d'un combat pour un traitement plus équitable. C'est le premier de ce genre en Afrique, Mister et Miss albinisme Kenya. Les candidats sont pris en main non seulement pour leur apparence, mais aussi leur caractère. On travaille sur l'éthique, mais aussi sur l'étiquette et les attributs personnels. Comment se présenter, parler aux gens, comment socialiser et comment marcher. Avant, ils pensaient que je ne pourrais jamais être mannequin car je suis albino. Mais nous voulons changer cette idée. On travaille encore sur la confiance en soi, mais je peux vous dire que les réactions sont positives. Pendant longtemps, ils ont dû rester ensemble pour se soutenir. Mais aujourd'hui, les gens s'ouvrent un peu plus. Ceux qui vivent avec l'albinisme apprennent à s'insérer dans la société et ils pourraient surprendre plus d'un avec certains de leurs talents cachés hier soir à Libreville. Le... cancer bi muy wax boo ci amé idée rek. très bien xamna né euh ginaaw am nañ fi oustaz moy suñu mag ki nga xam mo ñuy magalé saa su mom tamit dinañ ci jox euh, jangata mais mention spéciale à Nabou Création naxit euh li buñ ko gisé ñun ñu gis ko Kenya jappal ne gis nañ ko fi Sénégal euh, té mom moko ko jital euh, jiital leen ci défilé donc tay man question bi may laajte moy est-ce que dinañ gis famille bo xamanténé ñaari pouné ñu mhm. jur ku ñuul ko man. ah mais bien sûr xam nga nek mun nga nek puune sa jabax nekk puune ngeen am doom am puune Jigen, jigen bu nek puune mo amul chance jur puune parce que en général mun nga am doom ba pare te do jur puune mais pouré bu góor tey am na chance tay jur puune. mais bu dee si jigéen day xaw a jafe. day xaw a voilà boo boo en général ñun puune yi entouré Mm-hmm. mais mm-hmm. c'est tout un problème très bien madame Gaye, ben, euh, ban ban ban jangan ngay am nga li nga albinos dit bon man euh, déjà au sein de la LISCA sommes une association des albinos euh, du Sénégal ils sont membres de la LISCA donc ce qui veut dire que nous, avons bokk déjà la société surtout la société sénégalaise Nous, avons aussi une seen contribution ils ont aussi leur mot à dire sur la société sénégalaise mm-hmm. voilà d'accord très bien la Sall waaw <laughs> oustaz d'accord. waaw ah. xam nga lii dafa nekk loo xam ne man dama koy féliciter parce que li nga doon soo ko bañee rek dafa fekk ngeen cee ñaaw. dëgg la liñ naan nit ki des fois ñu ni day gëm boppam li ni du gëm boppam li day gëm yàlla xam boppam. li mm-hmm. day xam boppam te du gëm boppam. li yàlla lay gëm. gëm yàlla moo tax yow li nga doon nga nangu ko te pu jombul kenn yàlla moo bind ko weex bind ko jaune bind ko ñuul. rouge. rouge mm-hmm. les indiens. les indiens ah, les si tu leur demandes quelle est la couleur de ta peau ils te font je suis rose. rose ah, rose ah, rose la rose. automatiquement famille waa ji li ñuy njëkk wax dañ koy naan am ah moom bi de jamono ji yemul. Hmm. baat boobu. ndeysaan dafa ñaaw. te gis nga nit lépp loo wax nit ki ci lu ñaaw di nga ko lay ak suñu dëgg la moo tax toujours nañu xoolaat li ñuy waxante ci suñu biir. Hmm. gis nga yomal xiyaam du ñun ak yàlla.

gis nañu ku jël puune sacrifié ko. Mmh. mais gis nañu ay tentatives yoo xam ne buñ ci dé buñ ci tegul suñu tànk ci la jëm. Mmh. parce que gis nañ fi xale albinos boo xam ne dañ ko may deux cent wat côté bopp bi yëpp. bàyyi benn coté bi gis nañ ko fii Sénégal. 200 francs 200 francs xam nga xale xamul dara. 200 hmm. lañ ko may wat hmm. côté bopp bi. voilà karaw puune. Hmm. wat côté bopp bi bàyyi benn côté bi. am na puune boo xam ne man ñii toog dox naa ba ñu dagg sama karaw andil ma ngandam attroupement histoire bu rëy. te yooyu yëpp man ñii toog. fan nga ko dund lool euh, sama koñ si Kambaaw. d'accord dox di dox di dem heureusement man nag nekk koo xam ne a xam. may dox ba ñuy dagg sama karaw def ko ci poste bi ñu wax mu ne dagg ko ay garaañoo dóor ko génne karaw ba tey karaw gi maa ko denc Euh, te lolu soy xol euh, Fatima. Mhm. ci jamono élection lañ koy gëna gis parce que ñun soy xol ay doomi réew bi lañ nous avons le droit de voter. ay citoyen lañ man bamay voter ji élection dañ ma escorter. Mhm. parce que wóoluwuñ ma bayima man kessé ma dem ma dem ma dem ma dem ma dem voter ji. Mhm. euh lolu nekk na lo xamné Nicolas. dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax te ñu ci def nag ay djégo yu am solo. parce que ñu ngi sensibiliser ñu ngi dem ci télé yi té dañuy porter plainte tam contre X. parce que sacrifice ay faux débat des fois ñu la bo amé sida bo démé gis albinos bi da koy fajj ñun mënuñu fajj dara su mm. a loolu ñun dañuy may xaas ñu may ko suñu bopp mm. ndax nak ndax nak Nicolas mm. sama bopp moma la gënal du bañ na dañuy fajj dañuy fajj fébar ñun kon duñu fébar ñu xam nga lan moy suñu différence mm-hmm. handicap de peau mais yi mais crème cher voilà crème yi cher euh, c'est pas possible mhm. am na ñoo xamné ne sax euh, duñ ko am ba loolooy waral ñuy am ay cancer de la peau mais am na ay nit nak ñu ci japp vraiment am na ay nit yu ci mel petite goutte mhm. ñom dañu def un an sur parasol chaque weer wala chaque deux mois ñu jox la ay crème solaire euh, mu nekk crème est-ce que c'est disponible ci pharmacie fan ngeen koy amé sen crème en général voilà crème yi day am ci pharmacie mais da fay cher mais légui ñii jëndatuñ ko parce que comme ni ma la waxee am na ay ñoo xam ne ay bonne volonté lañ dañ koy dem ut extérieur di ko andi di ko di ko distribuer albinos yi. très bien euh, madame Gueye yéen ñi nga xamante ne yaa ngi di liggéey ci wàllu cancer ah donc tey nii euh, ak albinos yi nga xamante ne ñoom tamit dañu am ay jafe-jafe à chaque fois euh, ci loolu nga xam moom lay wax ci wàllu soleil naaj bi crème yi ah cancer de la peau tey nii yéen est ce que am ngeen ay jéego yoo xamante ne yaa ngeen ko ci def en leur faveur. tout à parce que je dirais même que ce moment c'est une journée mondiale euh, contre le cancer. C'est un président, Mouy euh, Bamba. ils sont membres de la LISCA. Donc LISCA de les accompagner. Même on avait eu une euro recevoir des lunettes de soleil des habillements même des crèmes solaires Yo, xam ne pour membres les enfants ak ñu jox mm. vraiment la liste mu est si euh, mm. vraiment am si bon am nañ résultat positif Et il y aussi un lendemain meilleur très bien mm-hmm. c'est important euh, Flora quelle lecture faites-vous par rapport à la situation la rubrique c'est euh, si la ñu Euh, elle parle de l'albinisme on en a tous, on, en connaît toujours un mhm. d'albinos. Et euh, je félicite tous ceux qui prônent leur, réalité. On en connaît, comme je, je vous l'ai dit, et ça me touche mhm. de, vous voir participer à ça. Mhm. J'ai des amis qui sont albinos, et je les salue d'ailleurs, et il n'y a pas de albinos chez vous Non, pas chez nous. Pas encore Mais c'est pas Je pas vous propose Mambiara Oui, bien sûr. Ouais, et c'est chanté. Hein. <laughs> bien sûr. Mais euh, oui, c'est vraiment à encourager. Avec le, le défilé qu'on a eu à voir, ça prône aussi la, euh, la confiance en soi. Hmm. Je pense qu'il y en a beaucoup qui manquent aussi de confiance. Et ce sont ce genre d'activités qui permettent de, de mieux les faire voir et autres que par juste leur problème de peau. Problème On se rend compte que ce sont des hommes et des femmes comme nous autres. Tout à fait.

mais émission télé. Mhm. am na koo xam dafay musique fee. Mhm. kee day def art visuel fee. mooy sër takay fa mu ngi basse ci ñoom waaw. kee dafay fecc fee. Mhm. nañu gëm suñu bopp rek te xam ne seenu daanu yàlla mooy bind moo bindee nu ko neexee te dañ koy nangu ah. te très bien c'est important euh, voilà très bien merci beaucoup euh, Mam Diarra avec sa belle rubrique ci la ñu bokk donc gis ngeen li nga xamante ne moom la doon waxtaanee muy albinisme albinos puune euh, donc lépp li nga xamante ne rek ñoom ñoo ngi koy xeex ñoo ngi ciy yëngu fësal na ko waaye. ñu ngi sant di gërëm ñi nga xamante ne ñoo ngi leen di jàppale ah, guddeeg bëccëg subaak ngoon c'est important mooy comme ni ko euh, madame Guèye waxee bu Liska ah, donc ci noonu rek la ñuy jaaree yaatal waxtaan ci octobre rose ànd ceeg waa Liska ah, madame Guèye moo fi teewal Liska tey muy euh, assistante ci euh, kër googu noonu muy ligue lutte contre le le cancer bien sûr donc dañ ci ànd ak moom c'est tout de suite très bien madame Guèye ginnaaw bi ñu la dalalee euh, dégg nga waxtaan bi waaye euh, ñu dem ci octobre rose ku ne xam na ni ci weer boobu buñ ci nekkee rek am na ay jéego yu mag yoo leen ciy liggéey waaye tey euh, ci xayma ñaata jigéen ngeen jàpp ne nombre de dépisté ah ngeen ngeen ngeen jot a def ci weer bi nga xamante ne ca la nekk. tout à fait Nicolas donc maa ngi profité di nuyu borom kër gi kilifa kër gi de nuyu personnel BIEP, yëpp di remercier si invitation toi PMC. toi-même toi-même tu sais voilà. toi-même tu sais Nous les remercier si invitation donc je dirais que Octobre Rose vraiment on a eu un bilan à mi-parcours positif je dirais. Mhm. Parce que vraiment on a eu à faire une consultation le 8 euh, octobre. On a dépisté environ 874 femmes. Donc, nous sommes dans mois d'octobre aussi. Nous reçu des femmes qui sont dans le l'ISCA. Nous avons subventionné des mammographies à 15 000 francs. Les mhm. femmes qui à l'ISCA, nous ont fait une inscription. Nous avons fait un bon, nous fay 15 000. 15 000. À la place de 60 000 À la place de 60, il y en a 80 000 même. D'accord. Même en retour, nous, à la fin de l'opération, nous, on va payer 15 000 pour chaque femme. D'accord. Donc, nous euh, Ce qui fait un total de 30 000 francs. Un total de 30 000, francs. 15 000 filles, 15 000 filles. D'accord. D'accord. Dans ce programme aussi, nous mm. une fatigue ak euh, Mbour. Mhm. fo xamné ne la ak Mbour dañ fo euh, def euh, consultation dépistage col ak sang bo xamné yoy aussi amna aussi formation des sages-femmes bo xamné ak col fatik ak Mbour. dépiste mhm. formé nañ fo 65 sages-femmes. Mhm. Pour euh, def le dépistage il y a pratiquement 800 et quelques femmes qui ont été dépisté nañ le ci col ak sein. d'accord ici le suñu consultation 22. nous xamné né environ consulté femmes. qui ont été dépistées dépisté le euh, cancer du sein. Les même au niveau de la LISCA aussi nous ngi on a pu subventionner ay bons mammographes bons gratuits à autour de 350 bons donc gratuitement hmm mais par rapport à ces réalisations mhm. euh, j'ai été au courant que tamit am ben benn salle foofu ca euh, Dantec boo xamante ne inauguré ngeen ko il y a pas longtemps mhm. avec le la ministre de de la santé euh, moom moo ci àndoon ak yéen donc mhm. mu ñuy ñi gis ne salle bi def na double salle ba ngeen fa fekk pour ngeen am ci ngeen ànd ceeg Japon ci machine boobu nga xamante ne appareil boobu nga xamante ne dafay baax ci mammographie te mu nekk matériel boo xamante ne c'est de la dernière génération effectivement donc pour ce, revenons revenir la salle chimiothérapie bi salle chimiothérapie au fait salle bi njëkkoon am c' tout dafa tuuti woon te mënu woon jël capacité yi malaat yi da nga daan gis benn lii boo xam ne ne ay deux personnes trois personnes dañuy bokk benn lii mm. par contre nouvelle salle Yatuna, ça fait le double pratiquement salle bi ñu absolument il y a des fauteuils il y a une climatisation télévisée et tout Yo, xam ne ne suñu ñëwee mm. dinañu nekk dans un confort Ils ont ne ne dinañu mën def seen chimiothérapie tranquillement mm-hmm. ñibbi waat seen tranquillement mm-hmm. voilà léegi même jàpp ne bilan bi positif c'est positif macha allah ñu ngi train de bu mm-hmm. euh, en ce qui concerne la machine euh, mammographie donc euh, ambassade du Japon moo qui suivant kii la appareil boo xam ne un appareil de dernier cri. de hmm. dernière génération. de la dernière technologie voilà dernière technologie boo xam ne à peine war na nekk euh, valeur bu cent quatre-vingts millions.

moyen la wa waa LISCA euh, def ngeen ci jéego bu am solo parce que 30 000 la jógee ngeen ñëw indi ko 15 000 loolu c'est à saluer mais juste que est-ce que am ngeen euh, sen sen euh, but peut-être bu gëna loin moy ngeen dem ba nga xam né képp kuy jigéen di nga mëna a def dépistage bi té do fay est-ce que yeen am ngeen genre projet boobu non am nañu projet bi. bon ñu ngi xaar. Mhm. je ne pourrais pas trop m'avancer. Mhm. parce que c'est des problèmes qui un peu technique c'est un peu qui c'est interne voilà mhm. C'est interne nous avancer mais dans l'avenir nous lutter à ce que nous avons dans l'avenir, nous avons mammographie nous avons a ko très euh, bien justement si euh, chimiothérapie là, nous, mhm. donc justement beaucoup d'idées peut-être les gens savent pas euh, réalité chimiothérapie mhm. donc c'est bi ñuy jàpp jafe-jafe yi nga xamante maladie nous ngi koy dund si seen feebar si par rapport ak chimio C'est lan lañ ci mën a Bon, bon chimio bi pratiquement peut-être sécurité de médicaments mhm médicaments yu cher parce que chimio li euh, le problème majeur moy cherte des médicaments nous amuñu accès accès munoo mëna pour mëna jënd euh, médicaments parce que ñun ñi nek à la liste ñun xamné c'est parce que on rencontre beaucoup de malades yo xamné dañuy am ay moyens dañuy am euh, ay problèmes pour le prise en charge de cette maladie mm-hmm. donc pour ce cas aussi nous mëna ko ñu ngi xaar. Mhm. ñu ngi déglu aussi. Mhm. bon dafa doon yoo xam ne ne ay assistante lañ mënuñu si avancer wu trop. Mhm. donc vraiment <laughs> dañuy bàyyi ak spécialiste yi rek ñu mën si ñu mën si répondre à ça. justement chimiothérapie tey euh, genre durée bi est-ce que c'est par étape wala parce que man justement man xaw ma la mooy chimiothérapie. donc je sais de nom mais processus bi en fait. processus bi lan lañ mën a jàpp maladie nan lañ koy dundé par rapport à programme bi par rapport à durée bi pour que ñu ñu ñu ak traitement pour que ñu ñu mën a qui mhm. euh, kii bi nga xamante souffrance bi nga xamante maladie ñu ko nous mis à part médicaments médicaments waaw je dirais même que chimiothérapie dafa donne une étape très difficile pour le malade parce que dafa donne ay médicaments yo xamné dañ la koy sa biir yaram à travers euh, perfusion perfusion. d'accord moom lañ lay defal pour mu dugg si biir yaram. c'est un traitement boo xam c'est un peu désagréable parce que dafa am ay euh, effets secondaires yo xam mom lay def ci nit ki. Mhm. mën na andi ay wàccu. ay miir munoo day andi ay perte de cheveux munoo mën ko daf lay ñuuloo bon mën na andi tout un tas xam ne day dérégler sa organisme en quelque sorte. Mm-hmm. donc am na ñu bari ñoo xam ne ne mun nañ ko supporter mais am na ñoo xam ne aussi mënuñu ko supporter aussi. waaw mm-hmm. donc y a des risques yoo xam ne ne mënuñu ko supporter. Mm, nanguwuñu ko organisme yoo xam ne nanguwuñu ko. ba donc am na ñoo xam ne dañuy dem ba si biir munoo mën ko dañuy def chimio bu mu jeex. ñu mm-hmm. prescrit laat leen ñu defaat encore ñu defaat encore. voilà Mais euh, récemment rassemblement euh, stade Léopold Sédar Senghor. Mhm. Euh, bilan bi Fofu, bilan parce que je dirais que c'est un bilan très très très positif parce que vraiment je dirais que nous ngi soucions wu si une santé. parce que cancer de santé publique. Mhm. Nous dañu ci sawar buñu woté ñun ñëp dañu ñëw tek ci ñu. ragal ragal bi wàññeeku ragal bi wàññeeku. d'accord parce que ñun le jour même du 22. Mm. amna femme yo xamné xam 3 h du matin ils étaient au stade. ah bon 3 h du matin si. teel a ñëw dañu teel a ñëw mm. parce que ñu ngi jógee dans les régions. je dis même d'accord ñëw fanaan stade pour mëna def le dépistage. donc ce qui veut dire que bon affaire bi ñi ñi ñu ngi koy. démystifier euh, ñi ngi yaatu. Mm. ñi ñi ñu ngi commencé ñëmé ci maladie bi. ba on a pu faire plus de 1800 femmes ont dépisté le jour 22. le jour 22. très bien c'est important donc euh, je vous rappelle que c'est madame Gueye, assistante de l'ISCA euh, donc xam savez, ne euh, weeru octobre bu ne rek lii bokk na ci li nga xamante ñom ci lañuy ñuy gën ñu dem ba ko octobre rose ban lañuy le mot de la fin. le mot de la fin bon pour commencer fi mu remercier les journalistes la presse. Parce que vraiment, jouer un rôle très essentiel dans la communication de la LISCA. D'accord. Nous remercions aussi les généreux donateurs. Parce que sans eux, nous avons fini de nous Nous devons remercier, de continuer aussi à tendre la main bonne volonté yi LISCA on a encore besoin de la population. d'accord soxla nañu nous dimbal surtout de l'aide parce que les malades sont encore là. Mhm. Mhm. très bien c'est important merci beaucoup madame Gay, assistante de LISCA Myriam trucs et astuces mode et beauté Myriam ci ban étape ngeen toll ñi ngi toll lah, ci foulard bi Nicolas ya ngi toll lah, ci oh, wa ci foulard bi dafa foulard bi ci ijab bi ngeen toll lah. ci ijab bi ijab da nga wara jaaré ni sax di def ijab bi moy deuxième fois am nga invité ijab xana troisième fois bi na ding fa jaaré han bay bay bop neen bi wa bay ba mariam def ba paré han wa mariam lay xaar mu def ba paré def na ba paré di oyo ko kon. Desna. Mako mu jigi gis dal def lu won ko la. Laj ko waxal ci lay jay loxal. Dina ko setti. Très bien. Euh, Khouja sa li nga defal legui ni euh, Miriam moy lu jëm ci walu makeup. Hmm. Mom nga ñëkke. Waaw. Euh, Yow kon boy def hijab bala nga def hijab sa cliente dang koy dang koy makeup ba pare. Waaw. c'est forcé ou donc nga ko qui ci qui ci qui ci qui ci qui ci stratégie. Bah c'est forcé. nga def make-up ba pare nga doog a def fulaar. d'accord mm. ci yenn événement lañ lay gën solliciter pour nga def hijab yi. ci événement yëpp ah. Hein. événement événement yëpp. Mm-hmm. d'accord. Euh, waaw ñu bàyyi la sa démonstration en attendant euh, euh, question. non de question ah, mais non mais c'est elle qui a fait nos make-up c'est pourquoi je je le dis c'est elle c'est elle qui l'a fait donc normal non non non non il faut c'est elle ah <laughs> très bien Aïcha euh, Khoudia Sarr euh, la ngay def yéex na de euh, Sarr Géléem Aïcha Sarr Jumel Chamel ayca bopp ñi takk boobu bi Chamel. voilà jërëjëf ah, jigéen toujours Chamel. Chamel la kay bi dafa ah. maa jaaxal inspiration. <laughs> Ah, moom sax daa nangu. mais am na saa gëlëm. saa gëlëm mun loolu dañ leen koy tooñee rek. tooñ rek lay ngay expliquer waale en même temps li nga nekk di def façon bi nga koy defee ni ngay takkee ni ngay téye ah. pour ñu ñi nga xam ñu ngi lay seetaan ñoom tam ñu bëgg ci bëgg di ci def. waa damay damay damay plissé si kanam rek. waaw léegi daal di créer benn musóor rek. benn fulaar rek. def ay façon rek ak ay fem. façon ak fem. waa d'accord yow jàpp nga ne yow doo fem yow rek fem nga. ayca. <laughs> voilà. nii lay mel. Hmm. non Nicolas teeyal rek pareegul. ma ma <laughs> <laughs> kon bàyyi ma teey. ngay teey def ndànk. Ah, ñu def suñuy fem. Ah, waxoon d'accord. waxoon naa la boo teeyal kenn du la gën. waaw yaa ko naa di nga ko déggaat. xam nga des na yeneen mais yaa ko wax xam nga boo ko sénégalais yi ñëpp ñeme maa wax loolu ndax xam nañ ne yaay sama mag c'est important Alaaji Sall est toujours avec Kandjeli groupe de jeunes énergiques euh, un album euh, depuis 2008 bien sûr euh, neuf titres euh, l'album s'intitule Racine mais mais mais on n'a pas eu à discuter sur vos collaborations comme Khalam comme Kirgi, comme Daradji et, et paraît-il quand même que vous avez débuté avec Daradji. Oui, Daradji a été le premier groupe qui nous a sollicité il y a quelques années, au début du groupe, on va dire vers en 2010, 2009, 2010 par là. D'accord. Donc on les remercie parce que ça a commencé avec eux. Mhm. Tout, tout, ce qui est venu après, c'est on va dire un peu grâce à eux quand même. Et Carlodi, Elzo Jamdong. Oui, Elzo, euh, Carlodi récemment. Fou Malade. Fou Malade, Viviane pour son anniversaire. Oui. Euh, oui, on a eu vraiment beaucoup. Kergui aussi pour leurs 20 ans. oui. Voilà, mhm. on a eu réellement beaucoup. Et. Euh, on attend juste la suite. Et ça hein. paye bien Ça paye bien Les futurings, quand on vous appelle <laughs> pour faire quelque chose dans leurs albums euh. <laughs> sais pas que ça paye bien, c'est juste, on a l'impression qu'on est riche alors que non. Tout ce qu'on gagne rentre dans nos costumes, exactement, dans nos, dans nos projets. Et voilà, on, le fait par nous et pour nous. Donc ce sont ces genres de collaborations-là qui nous permettent de faire le CD comme celui qu'on a eu à faire. D'accord. Le DVD qu'on a également sorti euh, il y a deux ans. Mhm. Voilà, c'est tout ça qui fait que ça nous permet de, de subvenir à nos besoins. D'accord. En fait, moi, j'avais envie de savoir, euh, pour ce genre de tenue, est-ce que pour chanter ce genre de chanson, il faut vraiment porter ce genre de tenue euh, Il y a une signification Les toges, c'est font partie du gospel. Oui, oui, ça fait. Ah. Parce que gospel, c'est évangile. Quand on voilà. parle de gospel, c'est religieux. Chrétien. C'est inspiré la ah, bah, confiance. Non, non, non, bah, terminer. Ah, bah, ah, c'est ça le billet. <laughs> Répondez à ça le billet. On va terminer. répondu à ma question. <laughs> Concernant la question. tontu na sa question de xaaral ngaa bëgg ayca kon mu allez-y non il y a un choix. ça fait partie c'est c'est la tenue phare pour du gospel. On peut mettre autre chose, mais aussi nous avons choisi de mettre euh, des toges. Voilà, c'est un choix personnel. Très bien. Question pour la Bigué. Oui, euh, on verra. Je vois que quand vous chantez là, vous souriez comme ça. <laughs> oui, ça fait partie, euh, pas partie, mais quand on aime ce qu'on fait, ça se retranscrit, donc on sourit, on, est heureux de le faire. Donc c'est juste, c'est naturel. Pas forcément, c'est pour nous-mêmes. On chante d'abord, <laughs> on aime ce qu'on fait. Après, les gens en face, quand ils apprécient, c'est juste un, un plus. Ah, voilà. C'est en plus, très bien. Euh, ça se prépare, le Grand Théâtre, 29 octobre 2016. Euh, <laughs> euh, on peut s'attendre à des invités comme les Fous Malades, les Khalam, les Takeifa, Carlodi, pour faire quelque chose sur scène Pas ce jour-là. Pas ce jour-là Pas ce jour-là. Les gens qui... ce sera nous, deux heures de spectacle gospel. Donc ceux qui sont, on va dire, curieux de connaître de savoir ce que c'est, ceux qui nous connaissent déjà et qui veulent réellement nous voir sur scène pendant ces deux heures, mais ça passe réellement très vite. C'est ce sera un, spectacle, un réel spectacle. Son et lumière. Exactement, ce sera un réel spectacle. D'accord. Voilà. Euh, ce sera le samedi, le vous convoquez les gens à partir de quelle heure À 21h. Nous, on est très, très pointillés sur, sur l'horaire. On a l'habitude de dire que c'est l'heure chinoise pour être ah, vraiment... l'heure chinoise. Voilà, sur que 21 exactement. Pile poil. Exactement. L'heure, c'est l'heure. Ceux qui nous connaissent savent qu'on commence à l'heure, que ce n'est pas juste pour parler. Mhm. Quand on dit 21h, c'est 21h. On y verra des instrumentistes, non Oui, il y en aura. Il y en aura pas orgue, mais il y aura euh, bon, des guitares, une batterie, euh, batterie une euh, basse, il y aura le tam-tam, des claviers, et il y aura d'autres. les vents. Et il y aura, y aura plein d'autres choses Expliquez-nous un tout petit peu votre organisation. Quand vous êtes sur scène, mhm. ceux qui sont basses, médium, aigus, il y en a Ok, oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Expliquez-moi. Donc, la voix, en fait, c'est selon le, le type de voix. On a des basses, les basses et les ténors chez les hommes. Les basses, c'est réellement comment on le dit, la, voix très grave des hommes. La, voix grave, Les ténors, c'est la voix un peu plus aiguë des hommes. Chez les femmes, c'est les, les, sopranes, pardon, ou les, euh, les altis. Donc les sopranes, c'est celles qui ont les, les voix un peu plus aiguës. Maintenant, maintenant c'est quoi Basse. Je veux entendre basse, s'il vous plaît. Basse. Assurez basse, s'il vous plaît. La basse est là. Encore La basse est là. non, non, non, mais, chantez un petit peu. Euh, donne-nous une petite euh, démonstration, s'il vous plaît. Très bien. Après basse, il y a Ténor. Ténor. Sur, toujours sur le même chant. Un bah. Moyen. Une essence, un cri, un cœur qui bat, ami, un quatre très doux, ami. C'est la vie, la vie. D'accord. Oh. Après ténor. On a les altis. Les Les altis. Les altis. Les filles. Les, filles, euh, vous êtes où là Allez-y les filles.

Ah, d'accord. <laughs> Eh, faites-nous une petite démonstration là, là, là, là, là, Moi, toute non, Oui, oui, oui, tout seule là. Hmm. Eti matambo, matambo janga nane. J'ai une voix un peu plus aiguë, mais... Euh, euh, xam nga ni dañ ko doon def chorale ah moo nekk nii ah, ana elle est c'est qui. Oh, j'en suis une et il y a les deux. les deux ouais je veux entendre les deux euh, allez on y va. Un, Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup, Kangele, euh, euh, groupe de jeunes énergiques, bien sûr. Et on se donne rendez-vous samedi 29 octobre 2016 au Grand Théâtre à partir de 21h. L'entrée est fixée à 5000 francs. 5000 francs. Allez sur scène. On termine en beauté. Ah, voilà, très bien. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous regarder. Toi-même, tu sais. Et nous terminons avec Myriam Ijab. L'Ijab, Ijab, Tagal. L'imam, mom. ni Khoudia Sarr. hijab la Nicolas. hijab day mel ni nekete. hijab baa ni, tagal baa ni. ah li jekk na de. Son les deux modèles ñu ñu ñu jexal. voilà Euh, Khoudia est ce que mën nga ñu un peu ndax li métier bi dang ko jang wala ki la rek euh, don bi nga xamanteni Yalla da ko may. si si jangumako ma en fait don la rek bo xam Yalla momako ma may. d'accord donc mu nek passion nek amour aussi. d'accord ma kay fonto depuis xale donc voilà. d'accord et depuis combien de temps yaa ngi exercer métier bi. ku ko bëgg noonu nu muy def ku ko bëgg voilà ku mën nga ñu jox sa ay coordonnées wax un peu lan mooy sa ay euh, perspective à l'avenir. Euh, waaw euh, ku ko bëgg. mën nga taxaw ngeen ànd taxaw yéen ñaar moom taxaw yow nga toog. Myriam <laughs> très bien nga ne Koko ko nu muy def fu muy dem mhm. très bien 77 wala 76 wala 70. 144 39 30. ñaata. 144 39 30 ban lan mooy préfixe bi 70 77 76 117, 400. 78. 78. 144. 144. 39 30. 39 30. Très bien. Merci beaucoup, Khoudia Merci beaucoup. Merci à Myriam. C'est un plaisir, Trucs et astuces, mode beauté. On se donne rendez-vous jeudi, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Nous vous donnons rendez-vous demain, 17-19h, sur les antennes de la DTV. Et tout à l'heure, il y a Kenya, qui Mbarahi. D'ici là, portez-vous bien. Euh, quant à moi, je, vais continuer, bien sûr, euh, à me faire plaisir, avec euh, euh, Kandjele, euh, sur scène dans toi-même tu sais. Et nous terminons en beauté. C'est parti. Sweet love, sweet cherry, oh, coming for to carry me home. Sweet love, sweet cherry, oh, coming for to carry me

for to carry me home. Just all oh, my friends coming after me. Come people to carry me home, oh, oh, sweet low, Coming for to carry me home, sweet low, Coming for to carry me home. You gotta be there before I do. Coming for to carry me. Oh, just and all my friends coming after me. Coming for to carry me. Oh, oh sweet Lord, sweet Lord, sweet Lord, coming for to carry me.